Futurs Médias mbokk yi ñoo ngi leen di bu baax a baax dellu di rafetlu ni ngeen ànd ak suñu ay programme suñu waxtu émission xalaas mu di suñu journal fait divers jot na ci rajo Futurs Médias lundi ba vendredi ay fait divers xew xewi jamono ñu koy indi fii di ko waxtaane ak yéen ñu ciy jànge di ci xamee di ci ànd ak euh, inspecteur ma euh, Mamadou Ndoye Ban maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar sama waa ji maa ngi lay béggee bu baax a baax di ziar euh, soo ñaari gos yooyu nga xam ni Euh, ñoom daal ñëwuñu tey dañoo daw Aba yàgg naa daw paas moom. ah man euh, jaaxal na ma tey lu tax gisuma ko. paas paas paas xam naa ni paas dafa dem lijjanti. ah soldat rigoureux à manquer. <laughs> jaajëf di ziar ñëpp rek di leen euh, ñaanal jàmm. waaw yal yàlla def jàmm ci réew mi jàpp def ko jàmm def ko ci kër yi def ko ci xel yi ak yi def ko ci xel yi ak xol yi lu am solo la. Mm-hmm. waaw ngeen soon rek feebar bi mi ngi ci dëkk bi di corona gi fi mu nii dafa gën a takkarnaase bu leen fàtte takk ci maski yi di laal yii nii di ko laal yii nii. di ko laal baax a baax. waaw waaw waaw di jël bagage yi di ko laal. voilà di di di waaw waaw da cay baax di ko def bu baax a baax quoi parce que daal dëkk bi nii man li njaay li ma yéem. corona bi daan naa ko dégg wóoroon na ma ni am na. Hmm. mais démb nag li waa gën a xam ni. nde euh, yi ñi mu daaneel bari na. kaay yi ñi mu daaneel bari na xam nga tey jii nga xam ay nit yu baree baree baree bari yoo xam ne affaire bi dañ leen daaneel. Hmm. nga woo leen téléphone. ñu damaa tëdd. mun la damaa tëdd lii ma daal. Ah, waaw loolu man loolu de woo naa ñetti nit démb téléphone. surtout ci jeunes yi. waaw leneen it comme dugg nga ca. Mhm. na kilifa yi dimbale nit ñi test yi di accessible. Mhm. ñuy mën a dem test wu ji. bii foor na de. d'accord naa ay ñàkk. Mhm. amul parce que ci àdduna bi yépp la. donc euh, loo xamante ne jii moom ñëpp a ko bëgg c'est normal mu jafe. Mhm. donc ay vaccin bu fekkente ne jàppandiwul dañuy sant yàlla ci yi fi jot a ñëw ba am ñu ko jot a ñàkkoo tey mhm. séentu yeneen. Mhm. mais test yi moom. nañu ci dimbale nit ñi. mu accessible parce que teel a xam foo féete. Ah, dafa baax day yombal aw nekkin li wala fi naan teel a nangu day yombali duma. nañu ci dimbale. waaw ah, tey nag dama bëgg nga toog ne noppalu may ma gërëm sama partenaire yi. waaw ah, même bu même bu de. <laughs> waaye rek baay ma gërëm leen rek. waaw bàyyi ma gërëm leen rek bàyyi ma gërëm leen rek ah. maa ngi nuyu Motin. waaw waaw waaw. la de Motin man man maa ngi nuyu Moustapha. Moustapha Moustapha Fall. Moustapha mooy Motin. waa benn bi la. waaw ay mag ak rakk lañ. Mm-hmm. ci gàttal établissement waa kër Serigne Touba Fallé frère. Mm-hmm. ñoom nga nuyu donc foofu lay tàmbalee ñoom ñi nga xamante ne ji ñoo indi ci réew mi li waa réew mi soxla di leen ko jox ci ni ñu ko bëggee mu di gaamu vite fait vite saa su nekk dañu koy faral di wax li tax ñu ne gaam la mooy lu doomu aadama di soxla rek ci ak dundam ba mu des lu ñuy lekk nag mu ngi ci gaamu vite fait bi pâte dentifrice boo xamante ne ji euh, gis bu ko gën dana jafe pâte dentifrice buy sàmm sa ay bëñ di ko weexal di la bàyyee xet gu neex ci gaamu vite bi la bokk ñoom ñoo ko fi ko brosse à dents bi mu war a àndal ci format yëpp mu di souple médium wala dur ñu indi cuuraayu bant buy dax ay yoo man ci nawet bi indil ñu également li nga xamante ne moo di frotter vite fait indi benn pomp boo xam ne muy yoo di mbóot di weñ lépp moo ci ay établissement waa kër Serigne Touba Fallé frère 77 555 11 11 77 696 34 67 beneen partenaire ci xalaas euh, mu di euh, lii din collège d'excellence Mouhamad Rasoulillah Dakhaay CMK ou collège de des sciences nga xamante ne ji li ñuy wax way jur yi mooy inscription yeeg réinscription yi tàmbali na ngir année scolaire deux mille vingt et un deux mille vingt deux ñoom ah. seen i mbir dara caaxaan amu ci. Mhm. Euh, CMK mi ngi euh, xamle it ne képp koo xamante ne ji da nga am bëgg sa doom am éducation bu baax. enseignement général primaire ba ba ba secondaire mais également lu aju ci enseignement coranique formation professionnelle lépp am na fa ci ni ngeen ko bëggee internat wala demi pension euh, parents d'élèves yi ci réew wala ci bitim réew bu ngeen bëggee seeni doom ñu taxaw leen ci éducation bu mat dénk leen ñi nga xam ne ñoo di collège d'excellence Mohamed Rasoulillah Dakhaye ngir ay information nag mën ngeen woo woote ci 77 569 76 42 77 989 77 40. Sakanal magasin ñëw ngir gunge waa Sénégal ni mu koy faral defee mi yi daf leen di noppal ci tabaski yi xam nga ñoo ngi wax jamonoy mbas mi kenn ku nekk di moytu dawante beeg dandante bi. Mhm. mel ni tulleeg maale noonu nag la gënee moom. Mhm. léegi nag sakanal magasin dafa ñëw ngir noppal leen gis nga baan bu la neexee mhm. da ngay def www point sakanal point sn li nga bëgg ci tabaski yépp nga ndugg ko foo mën di nekk ñu livrer la ko te boo defee sa pack achat pack tabaski dañ lay may benn keesu rani mais également mën ngaa woote ci 33 969 39 09 wala ñu respecter gestes barrières yi dem ci sakanal magasin mi ngi fi nga xamante ne ji moo di Sodida mhm. beneen partenaire ci xalaas di nga xam ne suñu mbokki diaspora yi jamono ji bëgg di yónnee seeni mbokk xaalis saa su mhm. mën nañ ko def Mhm. ci anam wu yomb gaaw te wóor euh, da ngay rek euh, yónnee xaalis ci loodul fay dara sa mbokk mi nekk fii dem jot ko ak seen wave bu jotee notification bi dafay télécharger application seen wave yow mi yónnee xaalis bi ñëw bitim réew bu ko sa mbokk jotee dem ci point Wave dem jëli euh, li nga ko yónnee huile euh, moutarde chef ayda moom it ñëw ngir gunge Sénégal ci seen dund mais nag bëgg wan a gën leen a wan boppam mhm. ci euh, tabaski gile mhm. lépp lu ngeen soxla ci moutarde bu baax marque cent pour cent sénégalaise mhm. noonu la ñu ko waxee mais également fàttali rek ne société bii di sénégalo américaine entreprise ñoom ñoo ko ñoo koy ñoo ko fi indi ñoo koy liggéey mu di mu di lu am solo am na siwo bu mag cinq kilos ba trois cent grammes sànq maa ngi seen Wave léegi maa ngi ci Wave. Mhm. xam nga Wave moom euh, moom nee nañu li ñu wax mooy. Mhm. ak ak sa xaalis yaay borom. yaay borom. Euh, lu aju ci ndimbalu jaboot tamit. Mhm. loolu la ñu bëgg. te it seen lépp dafa wóor ànd ak sécurité. numéro téléphone bi nga xam ne mooy moom la Wave di wootee. ngir ay information wala ngeen mën ko cee woo ngir ay information moo di deux cent six cent. moom rek wóor loolu lañu wax ak Wave euh, lu aju ci euh, li nga xamante ni mooy lépp lu jëm ci dépôt wala retrait maanaam dugal wala génnee xaalis yónnee xaalis ay mbokk say am di jàmm ak fay say facture lépp nag ci nu mu gën a yombee te ànd ak sécurité ak tawféex euh, loolu ci la liggéey ci la ci la ci la di dox saa su nekk. voilà waaw ah, waaw jël lay Vision Plus Sénégal ñoom it du suñu partenaire ci xalaas borom lunette yu baax yi te garanti ñu nekk ci promo tabaski jamono ji dañ lay booleel ñaari ñaari ñaari gaamu lunette vision de près ak vision de loin def ko ci benn lunette. Mhm. benn verre booy takk. Mhm. mais également ci prix promotionnel trente cinq mille. Mhm. mais yamu ci ndax euh, lunettes yi ngeen bëgg cadre lunet yi ngeen bëgg marque original euh, ak accessoire lunettes yi ngeen bëgg bu ngeen demee ci Optic Vision Plus Sénégal da ngeen ko fa am Optic Vision Sali euh, mi ngi euh, Cyprès 2 am nañu boutique fële ca ca ca ca Sali Carrefour boutique bu mag boo xamante ne ji bu ngeen fa demee lu ngeen bëgg ci ay lunettes médicales wala lunettes de luxe ak lunettes euh, esthétiques lu ngeen ci bëgg daal di ngeen ko fa am am nañu boutique également Kër mbay Fall ngeen mën leen a jot ci 33 824 54 57 wala 77 073 89 89 wala 77 136 11 63 pare naa de. ah pare nga. waaw ci sponsor yi. ah yow kay xam naa li nga sponsor. Ndiaye xam naa ni eh, daal tabaski gi maa ngi soo ñaati jeunes yi. Mm-hmm. doo am xaalis sax gone gu jigéen jëndal ko greffage jëndal ko lépp. Mm-hmm. te jëndoo am xarum tabaski. wala jëndaloo ko sa baay. wala nga yor jabar yori doom waxoon naa ko fi keroog jënd say sanse jënd sa jabar sanse jëndal say doom sanse sa baay sol mbubb moo xam ni saabu nañ koo saaboo saabo saabu ba loolu loolu rafetul. rafetul nañuy góorgóorlu ci waajur yi góor góorgóorlu nag jéem a jéem jéem a tabaski hmm. sa bàyyi su tabaskee nga mata ngay liggéey am loo jëndee tabaski hmm. danga war a jëndum tabaski waaye jën la nga jël yëpp nga jox ko gel boo xam ne nobu la jëndal ko gerefaat jëndal ki daal jëndal ko lépp ñawal ko te leer soo demee sax nobu la waaw ah, doy na waar de. ah doy na gërëm e- également ñi nga xamante ne ji ñu ngi ñuy may ay yére xale. waaw pour ñu jox ko xale yi. lënd lañ ko war a joxe. incha allah ngir yàlla képp koo xam ne daal bëgg nga cee barkeelu. Mhm. Euh, soo ko nekkee ci dëkk bi mën nga koo indi. ci ci ci rajo bi fii nii soo ko indi rek dinañ ci jot su ko defee ñu lënd ñu ñu ñu. daal koy joxe waaw bala ñu waaw bala ñu bala dem ndimbal day day gaaw. waaw rapidité efficacité njaay. xam naa di nga ne ma kër ga ca derkele lu ma fa am du fa xew famille Diallo. waaw e, héritage boobu. miraas ba démb ña nga doon marche xawma yëf yi xumu na xumu goo xam doy na waar. ñoo doon marche. mooy famille bi. famille bi ak ak dëkkandoo yi. Ah mais ne affaire bi commencé jaay kër gi. kon baan yëf yi yegg na foofu. mais yow yow Ndiaye yow déglul déglul déglul déglul ah, Alassane mi nga xam ne moom moo doon wax démb ñu eggale ko. bu fekkee dañ def coalition ñoom ñoo ëpp. voilà parce que démb mais ñi fi ñëw ëpp nañu six. ñi fi ñëw. waaw ñoo ñëpp ñoom baay baay la ñu bokk. ñoom ñi fi ñëw ñoom ñëpp ñoo bokk baay. yow six personnes nga ci àndal sur vingt sept. mais côté côté diine. Mhm. diine amul majorité. tey tey benn man kese kese kese kese su ma su fekkente ne déggoowuñu mhm. man kese su ma nee dañuy jaay dañuy jaay. waaw d'accord mais yow. mais yow waaw mais ba léegi waxoo waxu l'islam waxu tribunal nga wax. da nga ni da nga dem tribunal pour ñu jaay. pour ñu jaay waaw demoo jumaa je wax ni pour ñu jaay suñ demoon jumaa je pour ñu jaay su boobaa danañ wax góor ak jigéen ak ñoom seen. Mhm. mais ginnaaw da nga dem tribunal pour ñu jaay. est-ce que tey jii mhm. yoon may na la. Mhm. pour nga ànd ak sa six personnes yooyu jaay parce que. ñi àndul ak yow ñoo ëpp ñi nga àndal. waaw bu fekkoon loolu kay kon tribunal du àtte. est-ce que est-ce que loolu tamit yoon la parce que alal joo xam ne ay nit ko bokk. lu mat vingt cinq personnes wala vingt sept personnes a ko bokk. six personnes def coalition dem tribunal loo xam ne. vingt sept personnes ñoo ko bokk. Mhm. ak ak jaar na yoon si sama gis-gis moom si sama gis-gis jaar na yoon waa sama gis-gis parce que tribunal bi àtte. tribunal bi àtte ñoom ñoo xam nu ñu àtte. dañuy àtte ñoom woo na leen. ñun war ku si nekk saa ku nekk am nga avocat. parce que tey bu ñu waxee ne yëguñu jaay bi. dañuy wax lu leen neex parce que su ñu yëguloon Ndiaye duñu jël maître Bamba Cissé bi ñu gagné maître Bamba Cissé ñu dellu jëlaat maître Ndoumbé woon. yaa ngi mesurer yow en tant que taaw. waaw toroxal mën bon est-ce que mën naa ko tuddee toroxal bi nga xam ne. say sœur ak say frère nan nañ ko dund ci ci ci ci biir Derklé. Euh, ak ak ak ci biir Sénégal. xam nga ñu ñu ni seen mag bu góor moo leen ko teg. xam nga toroxal bi ngay wax ni au contraire ñoom ñoo ma toroxal parce que ñoom ñoo ma génne si bureau bi génne samay sœur. sama ñaari sooy yi ma bokkal ndey baay foofu la ñu seen appartement ñu génne leen. Uh-huh. occupé appartement bi. mais am na ñeneen ñoo mais am na am na ñeneen ñoo bokkal ndey ak baay yu tamit yu nekk ca kër ga. ñu génne leen ñu ñëpp occupé est-ce loolu c'est normal. dëkk fa dëkk fa. est-ce ñoom am nañ fu ñu dëkk. non l'islam l'islam xamul loolu l'islam dafa. l'islam mais c'est que yow yaa ngi naan l'islam l'islam te yow demoo ci l'islam yow tribunal nga dem. non tribunal dafay dafay dafay àtte parce que ñun su fekkante ne ñun ñu ñooy àtte suñu bopp dañuy reyante. Oh, mais mais tribunal du l'islam na. waaw ñun ñun bu fekkante ne ñun dañu dëkk suñu biir ñun tribunal amu si yoon dañuy reyante. dugal nañu sama photo si si. am nga am nga sa këru bopp. am naa sa man sama kër bi ma koy am ñoom ñu si ba judduwuñu. 88 laa am kër laa am euh, terrain. Mhm. 97 laa ko tabax. Oh, investigation mais yow yow ginnaaw yow yaay taaw te am nga foo dëkk. naka nga mën a def pour mën a woyefal say say rakk ak say mag. alaaji question bi du question man am naa fu ma dëkk am fu ma awma fu ma dëkk gis nga àdduna ñun du ñu xool ñun lu rafet si ñun lu yàlla digla loolu la ñuy def yàlla moo ne nit su deewee nañ ko miraas kuy dund yaa dund sa bopp ñoom dañ jàpp ni man maa jaay kër gi non non doy baan du man maa jaay kë gi kër gi tribunal moom moo ko jaay te ñoom ñoom ñoo def lu tax ñu jaay kër gi yow yaa yóbbu mais mais yow yaa ko yóbbu tribunal pour ñu jaay ko. waaw déglu loolu ñoom ñoom ñoom ñoo njëkk dem tribunal. léegi mbir mi léegi naka ci pexe. naka ci pexe. Hmm. ah man de wax dëgg yàlla aw aw ma ci pexe comme tribunal décidé nañ jaay. Euh, nu mu doon entreprise bi ci tuuru kan la nekk. entreprise bi. Hmm. ci tuuru Derklé les matériaux. waaw léegi bi paa bi waaw ma dem impo waaw pour xam nga chaque kii dañ indi impo impôt. comme entreprise bi doxul. amul xaalis. cessation cessation d' activité doo toog ñu lay indil ay million yoo xam ne liggéeyoo ko mënoo ko fay. Mhm. ma dem ma ni leen paa bi dafa gaañu paa jaalo mhm. dañu bëgg a arrêté entreprise bi ñu def ko comme magasin bu ñu jaay pour dundal famille bi provisoirement ba ñu miraas ñu doog a xoolaat ni ñuy relancer entreprise bi. Mhm. kayit yaa ngi fi waaw ah, léegi am na am na kayit yu ma gis man mi ah. léegi entreprise bi ci turu kan la nekk fi mu nii. non entreprise bi kay amul amul tur. waaw mais loolu ne ngay tuddee magasin ci turu kan la nekk. sama tur. waaw lu tax nga def ko sa tur. non non def moom sama tur sax maanaam man maa si doon jaay laal bu ko dama ne man maay jaay pour famille bi. waaw yàlla bi muy wax waxul ne ay kii lii kii lii la kii bu mu am fu mu dëkk kii yàlla dafa ne ku dee nañ ko miraas. Mhm. loolu waxu yàlla la du man. Mhm. yàlla moo ne ku dee nañ ko miraas ñoom tey bu fekkoon ne indi nañ jàmm mun nañ fa dëkk cent ans du leen wax dara bu fekkoon ne jàmm amoon na. dañu fa dëkk cent ans du leen wax dara ñëpp man xam nañ ma. Ah, su boobaa soo doo leen wax dara su boobaa kon li nga wax nii ni yàlla nee na kon noo koy def suñ fa dëkkee cent ans te doo leen wax dara. non non maanaam du ma du ñoom pour kii mais bu fekkee l'islam def ni dañuy miraas dañuy nekk nekk am fu mu. kon kon nangu nga ne yaa ngi xeex ak ñoom. non ñoom ñooy xeex ak man. non yow tam yaa ngi xeex ñoom. damay xeex mais Ndoye Bane doo toog ñu jël ay yat di la dóor nga toog Ndiaye kii mooy Alassane Diallo mooy Alassane moom mi nga xam ne moom mooy taaw bi. moom la ñuy tuumaale moo leen maanaam moom lañ ciy tuumaal ci coow li daal. voilà moom daal la ñuy jiiñ faux et a de faux ànd ak ay quelques frères am nee na daal moom ñoom ñi ànd ak moom six lañu te paa bi vingt sept euh, bant la am. Hmm. vingt sept ñeneen ñi ci des ñëpp ñoom ñoo ànd. mais xanaa war na am ay tuut tànk de. am na ay tuut tànk waa xoola aaw ba ñaareel ba ñetteel ba ñëpp ànduñoo waa ji waa ji di wax yaayam gaañu na bu yàgg yàgg. Hmm. voilà mais pa bi bi muy gaañu ñetti jabar la bàyyi ñetti jabar yi kenn ku ci nekk dangaa njaboot ay surtout jigéen ñee ci ëpp jigéen ñi nag sëyi na ñaar wala ñett ñoo ci des mais déglu beneen frère boo xam ne moom mi ngi ci mi ngi ci mi ngi ci coow li su frère bi pare mu indi la ñetti jabar yi d'accord problème bi nag àdduna bi yëpp dañ si war a wax ndax borom kër yi préparé seen njaboot avant ñuy gédd àdduna ndax àdduna bi moom kenn du fi des Alassane Diallo ñoo bokk ndey ak bàyyi mais man ak moom bokkuñu ndax man lii àdduna jaraluma ko bu fekkee am alalam si lii la ko yaakaar bàyyi ba sa bàyyi génn àdduna nga profitoo jënd kër yi yi mu fi bàyyi woon wala alal yu mu fi bàyyi bien yu mu fi bàyyi pour doomam yëpp nga profitoo jaay ko man moom damaa xaw a régal man moom am na yoo xam ne ñemewuma ko man nag su ma neexoon bokk si dil bi c'est-à-dire ma ànd ak ñoom parce que ñoom bokk ndeeg bàyyi ma ànd ak ñoom buñ jaayee kër yi comme saa moom dinaa si am dara mais man defuma ko parce que jaraluma ko jaraluma ko yow alal boo ci am ëllëg nga tabaxee ko kër yow est-ce que kër googu di nga ci julli kër googu doo sa taxaw julli ci man gis naa ko benn paa bu tabax kër mais du ci julli boo julli day dem jàll dem jàkk ba day dem ba jàkk ba julli ndax kër gi xam ne alal bu mu ko tabaxee lewul man loolu du ko def xalaatuma ko sax. depuis commencement bi ma waxee naa ànd ak ñoom ma bañ boobu ba léegi noonu noonu noonu noonu lañ ma def dëgg rek dëgg rek yàlla moo gën lépp. te dëgg rek ay mujj ci incha allah yaakaar na moom dëgg dina feeñ. te même bu dul loolu sax sama digganteeg rakk yi moo dàq ci rek soow tey boo ma fekkoon ak tey sama rakk yi. am na ñu bëri dañ may naan yow li ngay wax seen tas sa rakk yi dafa ëpp ah vraiment man lii bu noree yàqu dina am lu ma métti trop ndax kër suñu kër gi dafa neex xoon a neex neex neex bi nga xam ni kenn mënu la ko expliquer sama jabaru papa yi boo ma fekk ak ñoom da ngay naan ñii ñii xëy na samay mag lañu ndax lu may def ak ñoom. dégg ñu ne le 20 dañu convoqué tribunal parce que Alassane Diallo jaay na kër gi mais jour boobu man lii génn si man mënuma la wax lu mu toll. kër bi nga xam ni sa papa bu mu koy tabax sonn na si. def na lu ne xam nga rek metti na daal par exemple yow tey nga toog ñun ñëpp moom la ñuy ñaan ñu am suñu njaboot tabaxal leen kër ndax ëllëg bu ñu fi jógee. suñu njaboot am fu ñu dëkk borom kër bu nekk loolu lay daw yow borom yow paa yi nga xam ne daw la nu nekk pour tabax këram pour ëllëg bu fi jógee ay njabootam nekku fa keneen jóge fa la ñëw naan day jaay kër gi pour njaboot yi fanaan ci mbedd bi. Alassane Diallo moom depuis bu sama papa génnee àdduna ba léegi moom affaire yi moom xam nga rek am na yoo xam ne ñu ñoo bokk ndey ak bàyyi am na yoo xam ne man dama koy bañ a wax parce que xam nga. kii waaw ak Alassane Diallo taaw bi ñoom ñaar bokk ndey ak baay mais àndut ak moom. ay ci comme waxtu waa ngi dab. sax léegi nag jabar yi. waaw déglul jabar yi jox ñu. man maay aawa paa bi gannaaw paa yaay ñoom mama Diallo moom man maa ci toppoon yàlla def weddi ci seen yaay dellu ak génn àdduna mama Diallo lu mu wax waxul dëgg mama mosuñu koo laaj dépense mosu fee joxe dépense ba papam dundee dépense bu mu mujjee joxe ca la ñu a jot dépense suñu doom yi ñoo ñu yore ñooy fay courant ñooy fay ndox bu kër gi ràppee ñooy peinture soxla bu ñu am ñoom ñoo koy dox moosu ñoo jox dépense dañ ko laaj kenn laaju ko dépense sax ndax moom du nit mosuñu ko ko laaj waru sax moom bu doon nit la waru sax xaar ñu koy laaj dépense faf nag laajuñu ko ñu ngi sant yàlla sant yàlla bu baax sant suñu njaboot ñoo ñu yore yore ñu suñu lépp suñu dara manqué wu néewuñu suñu benn moroomu jigéen fu ñu taxaw ñu taxaw ko te fu mu taxaw rek taxaw nañu ko fu mu gis ñun parce que famille benn la bés bu nekk dañuy tasi ci xew yi tasi ci takk yi mosuñu ko laaj dépense tey mosuñu ko laaj dépense ëllëg lu mu wax dafay fen waxul dëgg. man la Ndeye Anna Kane deuxième femme ba Pa Diallo. 2012 ba Pa bi nelawee ba tey amul benn góor bu taxaw fii wala jigéen bu ne maa yor kër jàllo lu weesu suñuy doom ba Pa di door a gaañu mu metti lool. ñu teg weer a genn wàll mooy li muy wax noonu naan ñaari weer mu teg weer a genn wàll ma yónni ma woo ko ba mu ñëw ma jàkkaarloog moom ma ne ko Alassane mu ne naa ma ne ko jox ma ma inscrit ji xale yi dama yor ñeenti doom yuy doon jàng mu daldi di dem waxuma dara mu ne ma waaw dégg naa la mu dem ba mu neex ko mu yónni benn sëram mu ne ko nel ndey aana mënu ma fayal xale yi ma ne ki mu yónni soo demee nga ne ko ci saa si mënoon na ma tontu moom mu woote réunion ñu dem woo benn góor gu nekk fii ñu bu ñu wooyee paa bi ilimaan bi biñ ko wooyee mu ni leen bu fekkee ne jëkkëram moo ko doon jox muy fayal ay doomam jox leen ko mu fayal ay doomam bu fekkee nag bor bi da leen a tënk ba mënu leen ko fay ah mu seet nu muy def ñu ne mënuñu ko fay taluñu fay école bor lañu tala fay ma dugg sama néeg jooy ba xam ne eh, dee mooy dëgg ma ne nag alal du jëriñ dara gàcce lay faj ma jël samay takkaay yóbbu ko lalu urus bi ma demee ma jaay si ba doyal ñëw inscrire samay doom ma fayal leen boobu ba tey nag man ak ñoom ñu koy bëre di daanu di bëre di daanu ba ñoom ñëpp yàlla suturaal naa leen ñoom ñu ngi jàngal seen bopp léegi ba loolu weesoo xale yi mu wax dañoo sëyul fii ñaar ñett la baa bi jur ñu fi sëyagul ñu si des ñëpp seeni kër jëkkër la ñuy jóge lu mu tàng tàng ñu ñëw defanteeg ñun ba mu baax te suñu kër yi suñu doom yi ñoo ñu yor doomu jigéen ñi ñoo ñu yor gàcce ngaalaama jigéen dem nañu màkka ñoo yor suñu dépense ñoo yor suñuy courant ñoo ñuy fayal courant ñoo ñuy jox ñuy duggi marché tey jii ku fi toog añ teg añ midi une heure yàllaa yonente ba ak sa doom moo ko def Ndiaye dégg nga problème bi mooy alsaan nag bu déggee yëpp it na xanaa xam moo wax sax baaxul. waaw baaxul de. man du ma ne di am dëgg du ma ne di ñàkk dëgg. Mm-hmm. mais am loo xamante ne jii boo ca nekkee. Mm-hmm. wax am ca. Mm-hmm. da seet ki ki génn àdduna. te xam naa ne fa mu tëdd. bëggewu ko woon nii. mooy sa baay alalu àdduna jarul yenn yi sax. alalu bàyyi moo dul alal. Hmm? nit ñi dañ jéem a góorgóorlu ji wuti seen alalu bopp. waaye wéeru ci sa alalu bàyyi rek ŋaaj ŋaaj ŋaaj ŋaaj amul benn njariñ encore am jabar yi bari. jabar yi bari am doom yu bari ko ko fi am soo faatoo xamal yi nii lay demee ay doomu baay ak ay sama ndajaay ak sama rakku papa mais am na ñoo xamante ne ji baan baan bàyyi nañ yu bari waaw bàyyi fii jabar yu bari te taxul seen ginnaaw lëj dañ ko organiser avant ñuy dem léegi yow bu fekkente ne da ngay bañ yu bari léegi lu ñuy def jabar yu ah nga xanaa nga rek takk takk takk suuf takk suuf ñeent ñeenteel takk suuf te ni leen bu ñu am doom rek ñuy bañ a am doom aawa bay am eh, rek su miraas jotee aawa baa ki doo am jël affaire eh, takk suuf fi nag bañ am doom. Eh, loolu mooy affaire bi allo président ah, waaw. <laughs> Ah, Joko Dodo Be Colobane ak Sandaga du Sanzoro du Fere Sory Victoire Gori président de la appelé la première résidence du président la bi nga mooy demeure historique sur la carte Dakar Plateau Cap Dansel Sénégal construit en 1902 oui sama dépal waxoon naa yàgg la la mu nekk la résidence officielle du gouverneur général de la France centrale AF le bord sénégal Senghor Dial 1964 waaye du ñu kër de Abdoulaye 2012 Macky Sall depuis 2012 mi ñam fi ñamaat fi ñu xaan ba am kii wër bëgg jëpp président ko kala roor wala wala salaamaaleykum eh, man de man de nar naa bëri ay xar de <laughs> ñi ñi ñi wax xar Modou Gueye eh, transporteur président transporteur Pierre Linguère xaram Marème Faye Sall xaram nee na dana ñëw Moustapha Diop <laughs> maire de Louga nee na xaram a ngi As Diop si la eh, man yàlla bu ma big daral <laughs> allo mani salaamaaleykum maaleykum salaam maa ngi lay dégg dama ni allo Stade mani maa ngi lay dégg de dégg ko dégg ko Stade <laughs> Eh, mani maa ngi lay dégg bu baax damaa bëgg nga wax gaaw ndax man damaa war a julli ji. ah waaw waaw waaw yaa ngi may dégg. waaw. ba yaa ngi ci jàmm. ñu sant baax lan moo waral sa woote. Eh, kii président da dara daralam gi daralam gi may dégg ci ci pare bi am na. daralu kan. daralu daral gi bu bi ci. daral googu amul de. ah. amul amul. am na. déedéet. am na am na. amul. man kay naka jekk <laughs> ne day kon président Daniel Guisane day jaay xel wala day may ay xel. Kapalu eh, eh. ah. mani la daral gi amul. nga daral gi. amul. naka jekk mu ne amul non instant bii neexu da a kii moo xar dama ni. nga wax li tax nga woote gaaw ngir yàlla damaa war a julli ci man damay gontu. da ngaa bëgg li tax ma. nga wax li waral sa woote. maa wax li tax. ah. ay yàlla ay instant des yi nit. dafa des sa yi. ah baax na léegi daa am lu ma bëggoon a wax. léegi waa waxal waxal. waaw waaw waaw eh, kii damaa wax ni ci tabaski bi. ah. di nga xam ni ñooñu ñooy ñooy xale yi nga xam ni dañoo bëgg ay tufe ay ay waa jeeg yooyu. ah. nan mooy fër. nan mooy fër fër. luy fër. fër mooy xam nga fër. waaw. allo. waaw maa ngi lay dégg. ma ni <laughs> dama ni. <laughs> waaw waaw waaw. ma ni votre correspondant peut-être je pour le moment bi appel télé maanaam coupé naa la. nga di lan nga ba. loo ma def. coupé naa la. ah da ngaa bëgg wut xar yow. xaaral ma. xar nga ma dem. xar ma lan mu jigéen ma dem góor. <laughs> est-ce que moo xar ma dem fii